asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, tey Sénégo TV mu ngi dalal Alpha Thiam muy candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 nekk euh, juriste fiscaliste diplômé de l'université Panthéon Sorbonne nekk aussi expert RH international reconnu muy secrétaire général force nouvelle dimbali sa réew monsieur Thiam ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen nuyu bu baax monsieur Camara di la fay maa ngi ciy profité di nuyu aussi téléspectateur u Sénégo yi. Euh, di la sant di la gërëm ci invitation bii te nga xamee ne que ne moom nga def pour man mais defal ko suñu parti force nouvelle dimbali sa réew. alors monsieur Thiam euh, ñu ngi lay décrire comme un fervent défenseur euh, de la souveraineté nationale et du patriotisme est-ce que ci définition boobu yaa ngi ciy gis carrément sa bopp. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax ci gëstu bi nga def ci sama parcours ak li nga ci jot expliqué ma def ci benn complément rek je suis également entrepreneur social. Je suis euh, entrepreneur dans le transport, dans l'agrobusiness et dans l'immobilier. Euh, je me reconnais parfaitement comme patriote. Waouh, deug la. Je me reconnais également comme souverainiste. Je suis profondément attaché à la souveraineté nationale du Sénégal. Ndaxte nous sommes intimement convaincus que pour développement mën a am pour émergence mën a am pour développement ci boppam wala démocratie nga dëmal ko ci dëkk il faut d'abord dëkk bi moom boppam dëkk boo xamee ni que ne amul souveraineté du nekk dëkk boo xamee ni que ne mën na xuus di développer boppam loolu mënul nekk donc ça c'est une forte conviction que nous partageons moo tax bu ñu woowee souverainiste dañuy kontaan te dañ ciy gis suñu bopp donc ñu ngi remarqué aussi euh, une communication très présente euh, ci Dakar et sa banlieue donc un peu partout au Sénégal donc euh, fu fu ñu tourné ñu ngi say affiche donc ñu bëri aussi sa demande kan mooy Alpha donc lan mooy say motivation politique waaw motivation yi tey mën na bëri ay motivation la yoo xam ne réew mi toll na si situation boo xamee ne que ne dafa metti ci ñëpp nag que nit yuuxu ko que nit ñàkk ko yuux euh, boo xoolee tey lépp loo xamee ne que ne le sénégalais yi di jànkonte ci wàllu dund naqar la métit la yow boo amoon des revenus de mille de cent de cent mille de un million tey da nga gis ne ne charge yi nga xamee ne que ne moom ngay dundee moo ëpp revenu yi nga xamee ne que ne moom ngay gagné weer su dee wala bés bu ne maa ngi koy xool si suñu mbokk yi nga xamee ne que ne dañuy këpp xel mooy chaque jour li ñuy gagné moom la ñuy yónnee avant midi ci kër ga pour ñu togg ñu préparer wala moom lañ fay bàyyi su ngoonee pour suba si ñooñu juge dañuy vivre au jour le jour comme tu le dis si bien ñooñu catastrophe bu am dog-dog bu leen dal feebar gàllankoor mooy kër ga yëpp tey ñi sont pratiquement à l'arrêt bu ñu waxul ci dund bi am na lu bëri loo xamee ne que kon ñun en tant que tey jii nii aspirant à diriger ce pays la on passe complètement à côté te nguur lu tax ñu koy namm dañuy namm nguur bu puissant we mu am njëriñ pour askanam mooy mu ànd ay tontu andi saafara andi garab pour wàllu askanam bi ci wàllu dundin tey wax ci Senelec sax dafa mel ni da ngay gën a enfoncer une porte ouverte euh, woyofal bi ñuy wax diisal tur bi changé nañ ko yàgg na ndaxte nit yi mënuñu li ñu jaaxal kay mooy comment devant temps de médiocrité comment devant tant d'incompétence leaders yi jëlaguñu les décision yi nga xamee ne ne moom lañu war a mën a jël pour revoir le management de la Sénélec moom la ñu war a mën a jël tey pour xool Sénélec naka la war a mën a doxee ba nga xamee ne que payum courant dafay nekk lu oyof pour yi noonu la ñuy dimbale suñu askan noonu la ñuy taxawoo nit ñi ndox bi boo ko xoolee naka su dul noonu mu cher boo duggee ci marché yi lépp loo laal mu cher waaw situation boobu noo bëggee sénégalais yi ne ñu ngi gis seen bopp ci réew mi réew boo fa nekkee am na noo xamee ne que ne war na la mën a amal njëriñ war na la mën a amal njëriñ tey ndundin bi jéggi na dayoo parce que sénégalais yëpp tey étouffé nañu. mën naa ne étouffé nañu moom lañu ñuy wax cherté de la vie boo jëlee beneen problème tey ci Sénégal mooy Barça ou Barsaax bi euh, boo ko seetaanee muy la mer muy le désert nekk nañu les cimetières les plus immenses pour les pays africain wala. pour le Sénégal particulièrement chaque jour que Dieu yaa ngi gis euh, par Turkish Airlines par Maroc Airlines boo xoolee ci aéroport bi avion buy def trois cent passagers deux cent deux cent cinquante passagers yi ay ndaw la yoo xam ne que ñu ngi mbëkk wuti ji euh, Nicaragua wala génn bitim réew wala di daw c'est saigné de notre force vive est-ce que mën nañ toog di ko seetaan bakkañ kañ loolu dafa war a changer te day wane lajj ndaxte boo ko xoolee depuis wadd bi mu fiy jóge problème yi mu fi bàyyi woon mooy mbënd bi mbëkk mi inondation yi ñetti problème yooyu sont toujours présents tey jii nii en 2023 au Sénégal dafa gën a aggravé wu donc foofu lajj am na nga wax ko ak noo ko mënta waxee nga làq ko nga suul ko lajj bu mag am na foofu noonu ndaxte dara bougé aussi pire les choses se sont aggravées tey boo xoolee euh, chomage bi nu mu jegee dayoo ñuy génne ay statistiques yoo xam ne boo ko confronté à la réalité ci biir kër yi kër goo dugg l'exception c'est kii liggéey la norme mooy ñiy chômer ñiy chômer ñoo ëpp ci kër goo dëkk kër goo dugg donc on boo beau trafiquer wax chiffre chômage yeeg yooyu noonu mhm. nekkul réalité boo xamee ne ne tey dañ koy gis beneen bi mooy la mal malgouvernance la corruption àgg na ci niveau boo xamee ne que ne ça appauvrit l'État et ça gangrène notre économie ba nga xamee ne que mënatuñu gis suñu bopp ci biir. léegi nit yi dañuy wax ba nga xamee ne que dañuy fàtte ne que ne wax yooyu kenn sañatu ko sax wax. scandale yi fi jaar yëpp. bu fekkee ne da ko bëgg a citer da ngay xool. les contrats nébuleux les détournements des deniers publique la médiocrité les affaires telles que le fonds Covid boo jëlee affaire yi te nga xamee ne dafa mel ni ay Prodac euh, Big Togo mhm. TER euh, boo xoolee. Euh, loolu yëpp nga def synthèse bi tey mhm. nga ni globalement da ngay jàpp ni que ne Sénégal dellu na gannaaw quand mhm. en termes de recul démocratique mhm. également ci point yi nga xam ne moo ci nekk dëkk bi nga xamee ne que da ngay toog ñuy emprisonné ay opposants di emprisonné des journalistes nombre bi tey ak lu day ne ay mille six cent démb la chance dem seeti des familles de détenus politique du côté de Jaxaay du côté de Guédiawaye maa ngi nuyu suñu mbokk yi foofu noonu mais lu daw yaram avocat yi tay nañu sonn nañu bàyyi nañu famille yi amatuñu luñ leen fayalee ci biir famille yooyu am na ay pères de yu ñu arrêté am na ay jeunes yoo xam ne ñoo tëye woon seen famille ay soutien woon ñu arrêté leen loolu méttit la ñu ngi koy naxarlu kër goo xam ne da nga fay dugg fekk fa ndox bi taafa ba pare fekk fa ne que tey responsable kër gi wala ki nga xamee ne que moo téye kër gi jël nañ ko tëj nañ ko naqar mënul weesu loolu. famille boole ci dañuy dem 15 jours ba 15 jours rëbës pour seeti ji seeni i mbokk bu ñu ñëwee 11h ñu ne leen visite jeex na. mënuñu gis seeni i mbokk nañ si administration pénitentiaire dimbalee nañ leen bàyyi au moins ñu dem visiter leen gis leen ba nga xamee nag seen pen dina am nu muy wàññeekoo maa ngi appelé à la solidarité nationale ku ci xam. njaboot goo xamee ne que ne am na ku nekk rëbës am na ku nekk ci yeneen prison yi ñu arrêté leen ci kaawu manifestation yi fi joroon am ñu si mën ndimbal nañu yóbbu ndimbal bi mu àgg ci kaawu manifestation yi yooyu yëpp aussi peut-être si kanam dañ ci gën a xuus mais tout am na ay points yu bëri yi nga jot a soulever dans côté immigration clandestine a geneen ak yeneen donc est-ce que mënuñu jàpp tey ji euh, nguur gi fi nekk moo xawal laaj ji par exemple par rapport ñu fi jot si ñu fi jot tey jii nii bu fekkee ne da koy delloo si. par rapport à la cherté de la vie par rapport ak ñi xam nga tout à fait voilà donc tout à fait euh, techniquement da ngay jël indice yu mel ni ay IDH. Mhm. Euh, boo xoolee sur 193 pays le Sénégal est classé 180 160 170e donc da ngay xam ne que ne. derrière discours yu pompo yëpp émergence et cetera voilà la réalité mooy dañu bokk ci ndaare yi war nañu xuus lu bëri pour mën a dabu tey suñu développement développement ci dëkk mooy il peut pas y plus de mille milliards d'importation muy dugg suñu biir réew loo xamee ne dañ ko soxla pour dundin pour lekk pour bés bu ne te nga xamee ne que ne war nga mën changer paradigme bi yow en tant que dirigeant fexe ba nga xamee ne que ni loolu te nga xamee ne muy dugg sa réew nga ni léegi lii dootul duggati. Mhm. dañuy fexe ñu defar ko fii. Mhm. ndaxte boo ko defaree yaa defaral sénégalais yi defaree ak ay sénégalais defar ko pour sénégalais yi. Mhm. loolu mu ngi lay andil koom mu ngi andi xëy pour ndaw yi. te mu ngi andi impôt. ak fiscalité boo xamee ne que état bi. daf ciy bénéficier wu in fine. donc c' est vrai que constat yi bëri nañu par rapport ak euh, li ñu fi jot a gis yëpp donc euh, mais aussi c' est vrai que vous êtes candidat à la candidature donc euh, pour la présidentielle de 2024 donc supposons tey jii ngeen jàll parrainage ngeen ngeen nekk candidat seen candidature jàll nga nekk président tey par exemple lan mooy sa vision d' ici 5 à 10 ans. jërëjëf ci question bi question bu am solo nga posé. on a un choix patriotique, un choix de souveraineté que nous incarnons. Mhm. Ce choix, il met la défense des Sénégalais et de la nation au cœur des préoccupations de l'État. Mhm. Pour chaque décision que nous prendrons, mhm. nous poserons la question du curseur, il est où par rapport à l'intérêt du Sénégal Comment se positionne le Sénégal par rapport à la décision que nous prenons c'est extrêmement important deuxième point le fait tey ji nii diir de dire que nous sommes des patriotes nous sommes des souverainistes dafay militer mm-hmm. euh, ci protection wu suñu identité culturelle mm-hmm. ci sur notre indépendance mm-hmm. sur notre solidarité ak sur l'audace bi nga xamee ne que ne moom la ñu war a mën a am pour ne li ñuy motiver dépassé na li nga xamee ne que dañ doon toog ci kër yi. ma wax ko ci Sénégal yëpp que nous dafa mel ni dañoo fal président au suffrage universel rek bàyyi ko ak ay lengue buur loolu dafa war a jeex. ñu dellu si si système boo xamee ne que ne dafa gën a équilibré. américain yi dañuy faral di wax life is not a spectator game maanaam dund bi nekkul. que yow da nga war a toog di seetaan mel ni film. wala yow da war a nekk spectateur rek. Mhm. di commenter suba ba ngoon la presse ñuy wax politique journaux yeeg yooyu noonu ngay commenter kese. Mhm. déedéet dañu bugg loolu dakk dañu war a dugg dans l'ère de la co-construction mhm. dans l'ère bi nga xamee ne que ne citoyen bi il devient actif ci commune am ci région am ci département ci nation bi ñu gën utiliser xarale yu bees yi ba nga xamee ne que jiite dañuy mën di sonde di laaj nit ñi ñuy tontu lii la ñu bëgg lii mooy direction bi ñuy joxe également seen sentiment seen ressentiment par rapport ak l' action publique ak di ko mën a juger. loolu c' est important que ñu réimpliquer maa ngi wax nit ñi indignez-vous est vrai mais nañ dugg ji ci partie yi nañu milité ji nañ dem wax. li nga xamee ne ko mooy suñu xalaat parce que co-construction boobu noonu la ñuy tabaxee réew. te tey jii nii Sénégal war nañu apaiser waat. war nañu defaat benn œuvre boo xamee ne que œuvre de réconciliation la ni ñu jàppee politique. du li nga xamee ne que ne que lañ ko war a mën a téye damay wax encore une fois euh, Einstein. dafa doon wax. Euh, adduna bi narul yàqu ci ñi nga xamee ne que ñooy defkatu lu bon yi bu fekkee ne ñoom rek lañ bàyyi ñuy def. Mm-hmm. mais adduna bi dafa nar yàqu. su fekkee ne que ne ñiy seetaan ñooñu di def lu bon ñuy continuer dañoo bëri te loolu waruñu si nangu ñun dañoo war a toog tey ji ne ne seetaan jeex na parce que yàgg nañu toog di seetaan Sénégal lii fi xew yëpp te jot na nag ñu mën a jël moo tax ñu ne pour ñun tey politique euh, wareef la dafa nekk un devoir dafa nekk engagement boo xamee ne que ne désespoir bi tas yaakaar bi. toll na foo xamee ne que ne il faut que ku ne def ci loxoom. njënd nit ñi. guerre bi. Euh, kaay ñu jox la 1000 euh, francs sandwich tissu. cinq mille dix mille jënd sa baat wala dañ la promettre dañ lay dugal ci bourse familiale yi moo tax yow nga ni kaay nga dem votel diw pour la continuité mhm. wala pour xawma lan douze ans waaye ñun dañu woote rupture parce que baax na dëkk am respiration démocratique baax na dëkk passé si leneen ba nga xamee ne que ne waa dëkk bi dinañ ci gis seen bopp tey vision bi nga xamee ne que ñun moom lañu am ci biir force nouvelle vision la boo xamee ne que ne am na lu si différenciant nu proposons un contrat au Sénégalais boo ne contrat mooy tu dois exécuter ton contrat tu t'engages à l'exécuter en tant que co temps ci loolu dañ siy dox mooy da ngay am ay réponses concrètes yow andi à travers ton programme ba pare da koy évaluer da nga koy suivre di ko piloter tey boo xoolee. choix boobu par rapport ak programme boobu lan mooy a gën a mën a joxe. maa ñëw. Mm-hmm. maa ngi doon terminer ci vision bi bi nga ma laaj mm-hmm. noonu noonu pour ma andi la ko. Mm-hmm. tey dañu woote Sénégalais yëpp tey ñu ñëw def seen loxo sur la co-construction d'un grand Sénégal. un Sénégal souverain. un Sénégal puissant industrialisé. un Sénégal créateur de talent. boo xamee ne que dafay tàggat ndaw yi ñu nekk ay talent un Sénégal créateur de champion économique dañuy am ay entreprises yu mag yoo xamee ne que ne dañuy liggéey di créer comme fii créer comme ci bitim réew di ko andiwaat fii muy jëriñ Sénégal ndaxte privé bi moo wax ko secteur privé national fort secteur boobu noonu mooy secteur pourvoyeur d'emploi mooy secteur pourvoyeur tey jii nii d'impôt mooy secteur pourvoyeur de valeur ajoutée pour un État Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal boo xamee ne dafay nekk maître de son destin un Sénégal réellement réellement souverain et j'insiste sur ce terme souverain parce que c'est comme ça qu'on deviendra un leader africain puissant li xew ci yeneen dëkk yi mooy y a une vraie exigence de souveraineté nationale or cette exigence elle en tant que besoin en tant qu'aspiration par des militaires boo ko xoolee de l'Égypte au Tchad euh, nga jaar ci euh, Niger euh, Burkina Guinée ñaanuñu yàlla loolu am fii nii Sénégal nous voulons tey jii nii accomplir terminer ce processus tey jii nii par la voie démocratique mu génn par les urnes avec des positions équilibrées où le Sénégal se retrouve totalement apaisé et réconcilié mais comment comment par exemple les yi nga xam ne moom moo gën a mën a kii euh, peut-être pour essayer de convaincre les Sénégalais tant que futur président donc yan mooy say propositions. déjà dañuy wax ci dund bu métti bi. mu am benn premier point boo xamee ne que dañ siy ñëw. point boobu moo tudd yombal dund bi. yombal dund bi ñu ngi ko def grace à li ñuy wax les cinq téeméer de Alpha Thiam les cinq téeméer. lu mën a nekk la seen naka la ñuy lutter contre la hausse exponentielle des prix de denrées alimentaire et des denrées de première nécessité li ñu gën a soxla maanaam ñun bu ñu dénkee réew mi dañu ne huile litre huile cinq cent lay jar téeméer euh, ñaari kilo ceeb téeméer un kilo de sucre téeméer ilaa Touba bi yoon bi ba Toglu téeméer litre essence ñu ne téeméer ma en résumé wàññi kii mais dañ koy wàññi bu baax. ba pare pour les transporteur dañu ne 400 francs la ñuy def litre essence bi pour permettre leen ñoom tamit ñu mën a wàññi tey njëgu transport bi. léegi nag ci wàllu suukar bi lu tax ñu war si mën a insister naka la war a mën a nekkee il faut ñu am benn ñaar ba ñett usines yoo xamee ne que dafay defar suukar ñun dañuy xeex monopole. amuñu dara contre ay nit sur tous les domaines d' activité stratégique de l' État. nous voulons une souveraineté nationale maanaam Sénégal. dafay nationaliser ji ces secteurs stratégiques dootuñu bàyyi mu nekk ci ay loxo doxandéem wala loxo ay entreprises étrangères loo xamee ne que mooy suqali suñu koom loo xamee ne mooy développer suñu dëkk loolu ñun dañ ciy taxaw donc am na noo xamee ne que ne euh, ci yenn entreprises yi boo xamee ne que mënoo ko nationaliser da ngay waxtaan ak ñi nga xamee ne ñoom nga ko dénk comme sa dañuy xoolaat capital bi nga xamee ne que moo fa nekk fu état du Sénégal fekk ne que ne dañu wàññi woon dooleem ñu fexe ba nga xamee ne que état du Sénégal capital bi dina ci yéegaat nekk fa majoritaire mhm. nu mu mënti demee majoritaire wala majoritaire absolu wala mu nekk fa daal majoritaire mais jëlaat suñu souveraineté mooy avoir une souveraineté économique mooy ñooy moomaat ñooy jël suñu moomeel mhm. nooteel gi dañ koy dindi buumu jaam bi nga xamee ne que moo nekk suñu loos dañ koy teggi degré ou de force dañ koy dindi loolu moom daf ñuy tardeel tardeel nañu ba heure bi nii te bëgg nañu loolu dakk na si ñëpp jàpp ci loolu la ñuy woote beneen bi tey boo xoolee euh, ñu ne ci wàllu contrat yi mais ñeneen ak ñeneen wax nañ ko ŋaññe nañ ko boo xoolee li ñuy mujj wax ci pétrole bi temps yi nii da nga koy découvriraat 10 pour cent la Sénégal am ci yanu contrat yi. loo xamee ne ko ñoo ko moom naka la ko xel mën na nangoo benn sénégalais d' accord ci d' accord ci tey. d'accord ñu si ëllëg duñ si d'accord tey ji nii xamatuma ba kañ donc il est temps li ñuy wax des contrats léoniens maanaam contrat boo xamee ne que ñaari ko contractants yi am na benn partie boo xamee ne que dañ ko léser ba gisu si boppam waaw loolu juriste yi ngay dajale Sénégal manqué wul juriste ñu toog ñu waxtaanaat ñu xool naka la ñuy corriger ces déséquilibres contractuels ba nga xamee ne que ne Sénégal contrat yooyu yëpp soit dina si nekk majoritaire wala Sénégal jëlaat moomelam ak yëlleef tey ji nii génération bi ak génération future yi war a ñëw dañ ko war a préserver fal buur fal réew fal président dafa wute bokkul dañuy fal président mu foog ne dañu fal buur loolu ça nous appelle à revoir nos institutions nous tey au sein des forces nouvelles nous appelons à retravailler tey jii nii sur la base des assises nationales conclusion majeure nga xamee ne que ñoo ci nekkoon dañ ko war a jël ñu réfléchir ci ñu xoolaat ban république la ñuy teg république boo xam ne du république u euh, cinquième république du constitution boo xamee ne que ne loolu moo ñu ko andil dafa war a nekk constitution boo xam ne sénégalais yi tey ji nii dañuy gis seen bopp ci biir te dafay équilibré institution yi loolu il faut ñu def ko parce que mooy tax népotisme yeeg ak yenn xeetu euh, ëppal yi jël nguur gi ñu foog ne que euh, waa ji mooy buum mooy buumi mooy def lu ko neex loolu tey ñun dañu fexe mu jeex benn point bu important boo xamee ne que réponse la sur le plan de l'emploi des jeunes l'emploi des femmes euh, et des moins jeunes euh, on a un plan qui s'appelle euh, un jeune une solution FEP maa ngi sax am na ñu nekk di ko copier ma saluwaale leen bu baax a baax parce que. Euh, l'objectif non bëgguma citer ay tur euh, l'objectif mooy euh, nit ki nga falu c'est par plusieurs façons nos idées mën nañ dem ba retrouver ko ci plateforme yëpp te loolu maa ngi ciy profiter di di di def un appel a tous les candidats de l'opposition même du pouvoir il ya a un socle minimum un minimum minimum sur lequel tey nous devons nous mettre d'accord pour créer un programme de gouvernement commun programme boo xamee ne que ne l'ensemble des mesures yi sénégalais yi di xaar mesures yooyu dañ koy bind ci biir ñu contractualiser ko signer ko ba nga xamee ne que képp koo xamee ne que ni yow ëllëg yow lañu ñu fal ak sa équipe yéenay àndandoo dox ci programme boobu noonu piloté ko suivre ko déroulé ko ba nga xamee ne que ne dafay joxe résultat yu mucc ayib loolu ñun appel boo xamee ne que dañ koy lancé je parlais des jeunes les jeunes mooy naka la ñuy defee un jeune une solution fépp un jeune une formation un jeune un emploi un jeune un projet financé yooyu c'est des réponses concrètes te mooy suñu pacte en faveur de l'emploi des jeunes bi nga xamee ne que moom la ñu élaboré euh, au sein tey jii nii euh, du parti Force Nouvelle nous comptons également imposer le SMO le service militaire obligatoire le service militaire euh, obligatoire <laughs> ah waaw mais service militaire obligatoire mm-hmm. dafa nekk loo xam ne que c'est du don de soi mm-hmm. loolu moo lay permettre nga renforcer la cohésion nationale mm-hmm. moo lay permetre tey euh, nga développer le sentiment d'appartenance moo lay permettre nga développer sur des matières yoo xam ne dafa mel ni euh, la civilité dafa mel ni tey la citoyenneté da ngay fexe ba armée bépp ndaw boo xamee ne que ne jaar na fa dinañ ko tàggat balaa mu faa génn am na métier bépp ndaw boo xamee ne que jaar na armée dina gën métier dinañ ko jàppale ba nga xamee ne dina am emploi armée dina dérouler sur le plan national un plan Vigipirate plan de vigilance boo xamee ne que ne day permettre ñuy surveiller suñu territoire bi sur l'ensemble des étendues euh, du territoire national dinañ surveiller nos frontières dinañu mën a yokk kaaraange gi ba nga xamee ne que ne li xew ci wàllu terrorisme ci wàllu jihadisme si yenn réew yi fii du fi dugg loolu c'est extrêmement important armée moom ngay def ay domaine d'agriculture yu mag nga dénk ko armée ñu piloter la performance lépp li nga xamee ne que dañ koy importer ci wàllu suukar ci wàllu euh, gerte dëwlin ci wàllu ceeb et cetera nga dénk ko tey sa ndaw réew parce que doo am suuf am naaj am ndox am ndaw yu mat ndaw euh, ñu nekk fi nga ni yow mënoo fexe ba nga xamee ne que ne ñooñu duñ ko mën a produire boo leen ko dénkee dama ne performance yi ñu soxla ci mbéy bi fii dañ koy am boole ci armée dafay nekk lu njëriñ bu bees parce que l' armée des métiers lay nekk armée nation oui mais l' armée métier encore deux fois oui te dañuy ànd ñun ñëpp d' accord ci affaire bu xaw a mel noonu suñu souveraineté militaire également ak notre souveraineté diplomatique dañoo bëgg garantir ko mais loolu yëpp mu ngi am encore une fois lu dul ñu mën a nangu ne ne ñooy àndandoo xeex pour créer tey un plan un plan majeur pour l'entreprise au Sénégal plan boobu noonu mooy permettre tey ñu digitaliser numériser transformer suñu entreprise yi tey boo jëlee ku mel ni euh, fu mel ni le Nigéria nga laaj le président Obasanjo lan mooy sa plus grande fierté da lay citer des noms de puissants groupes yoo xamee ne que ne il est il a contribué à les créer noonu la ñuy déggee ku mel ni Dangote tey jii nii euh, mu nekk un fleuron africain ci ciment ak su produit yu bëri noonu la Sénégal war a mën a def nous développer c'est créer des champions économiques des champions économiques puissants ñoo xamee ne que ils vont faire de la croissance externe dañuy dem ci yeneen dëkk yi di di def du made Sénégal mm-hmm. fii ça nous permettra de faire du consommer local mais ils vont tey jii nii exporter le Sénégal parce que ce sera nos ambassadeurs sur le plan économique te ñooñu ñooy créer encore une fois de de la richesse ñooy créer de la valeur ajoutée ñoom ñooy créer de l'emploi ak ñooy donner la chance au premier emploi aux jeunes pour leur permettre tey jii nii d'accéder à des emplois stables ak permettre au pays de mieux se développer nous proposons également de réinventer l'école sénégalaise en incluant et en invitant euh, l'ensemble des acteurs euh, du monde scolaires également, y compris les parents. Revoir les curricula pour avoir un marché adapté aujourd'hui à la réalité des besoins du Sénégal. À ce propos, pour pour jàppale famille yi mhm. euh, il faut ñu jéem a fexe ba nga xamee ne que étudiant bu ne di nga am bourse soixante quinze mille ñu fexe ba aide scolaire ci bépp xale bu nekk école ñu jox ko quinze mille mais li gën a important mooy il faut ñu réinventer l'école publique l'école publique a fait ses éloges l'école publique a fait des talents et mënuñu seetaan tey ñu ne le privé à tout prix école publique bi mu ngi nekk dina sax mu ngi nekk di dee donc liggéey la boo xamee ne que ñun am nañ ci euh, xalaat bu sori bëgg nañu véritablement tey ñu xoolaat naka la ñuy jàppale éducation nationale régler ces problèmes ñi nga xamee ne que du jeex mukk lu ñuy fay professeurs yi naka la ñuy fay ñii nu ñuy intégrer ñëpp ci benn corps bi apaiser secteur boobu noonu ba pare nag am na loo xam ne neexul mais il faut sincèrement ñu waxante ko mënuñu wax ne que ne dañuy dëkk ci grève am na secteur yoo xam ne que grève waru leen parce que pour nu ñuy tabaxee ëllëgu suba la ëllëgu réew yi question yooyu noonu pour ñun euh, dañu war a wax ak population bi yëpp laaj leen seen avis ñu jël décision bind ko te dinañ si agsi et ce sera extrêmement important pour l'avenir de nos pays parce que demain xeex yi nar a am xeexu intelligence la xeex la yoo xamee ni que ne waruñu seetaan tey jii nii suñu cerveau yëpp à partir de bac ñu commencé leen yóbbu ñu dem seen yoon bac plus 5 ñu dem seen yoon ba nga xamee ne que retombées yooyu dootuñu si bénéficier wu. ñu ngi wax ci souveraineté énergétique c'est un point qui est extrêmement euh, important tey ça nous permettra de baisser de moitié au moins de moitié voire du tiers la facture énergétique des ménages et des entreprises euh, grâce à quoi. grace tey jii nii un programme audacieux euh, avec des centrales nucléaires euh, de petite taille il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des SMR des small molecular reactors il y a des programmes yoo xamee ne que ne y a un certain nombre de pays yoo xamee ne que lancé nañ ko te pays yooyu noonu gënuñu ñu ëpp ñu ñu doole question d'ambition rek la tey jii nii Rwanda mu ngi koy def Ghana mu ngi koy def Maroc mu ngi koy def euh, et cetera donc loolu avec une coopération solide win-win mën nañ ko taxawal fexe ba nga xamee ne que ne dinañ ko lancer ñu def ko mu njëriñ sénégalais yi parce que bu boobaa fay courant dootul nekkati benn problème pour sénégalais yi facture courant dootul weesu vingt vingt mille ci kër. xanaa kay da ngay ne naka laay amee benn armoire si <laughs> sa biir salle wala naka laay amee euh, climu deux chevaux trois chevaux et cetera mais nekkatul ay problème mu euh, lan lay courant nekk di jar wala affaire yu xaw a léegi joxe naa exemple boobu noonu te nga xamee ne ni ñoom Égypte ñoom Rwanda Ghana ñu ngi nekk di si dem. sur la souveraineté énergétique nous avons une proposition qui nous permettra de réduire drastiquement la. facture euh, des entreprises et la facture des ménages, au moins du simple au triple, grâce aujourd'hui à un programme puissant euh, avec l'aide des centrales nucléaires. xam ngeen aussi bien que man que ñeneen ñi que tey am na lu ñuy wax des small modular euh, reactors donc dafa nekk ay SMR c'est des nouvelles génération la de réacteurs yoo xamee ni que ne tey euh, dafa war répondre aux besoins d'industrialisation du pays et ak aux besoins tey jii nii de baisse de la facture énergétique des des ménages loolu c'est ça pour nous permettre de rattraper des pays comme l'Afrique du Sud le Rwanda le Ghana le Maroc yi nga xamee ne que lancé nañ ko pour wax ñëpp na tiitalaate tiitalaate bi ñuy def ci nucléaire bi matatul ñu si tiit am nañu xale yu xarañ yoo xamee ni que domaine boo ci bëgg mën nañ si ñëw liggéey euh, benn beneen point bi tamit mooy à côté de ce nucléaire là il est possible d'avoir des centrales solaires de type IPP Independent Power Producer pour mën a indi tontu les six millions de sénégalais yi nga xamee ne que ne euh, amuñu accès malheureusement ba heure bi à à l'énergie à mu nekk accès universel boo xamee ne que dañ koy proposer ji nous voulons rendre obligatoire l'enseignement tey jii nii euh, l'enseignement religieux et l'instruction civique dans les écoles d'accord Euh, nous, nous voulons également euh, parler de la souveraineté numérique euh, à travers un ambitieux plan euh, Sénégal Startup Nation que nous voulons développer mën wax nañ sànq ci constitution bu bees bi nga xamee ne que ne war nañ ko euh, teg te nga xam ne moo lay permettre nga andi ay tontu sur euh, la souveraineté tey sur la séparation euh, des pouvoirs sur la défense des intérêts des Sénégalais et des Sénégalaises euh, qui te permettra aujourd'hui d'impliquer les Sénégalais en mode co-construction et surtout d'intégrer également tout ce qui a été œuvre réalisée sur la base des assises nationales et autres donc yii ay points la yoo xamee ni que ne mën nañ ko jël comme ay point phare benn aussi ma mën ko ci citer mooy la réduction du train de vie de l'État ñun li ñu woote mooy un gouvernement avec vingt cinq membres au maximum au grand maximum. waaye waaye waaye mais bokkul ñun dinañu joxe ji liste gouvernement bi avant même ñuy gën a continuer ci temps yi di xuus fileeg parrainage yi di di jeex la suppression d'un certain nombre d'institutions comme ay CESEG et cetera yoo xamee ne que ba tey sénégalais yi se la question de lii lan la ñuy jëriñ bi amuñu si tontu. waaw yu la amalul benn njëriñ am na nag une politique zéro tolérance tout sur tout ce qui est corruption ak ñu jéem a promouvoir euh, l'éthique euh, dañu d'accord ñu ñëpp sur un fait l'ensemble des rues du Sénégal yi nga xamee ne dafa porter ay noms colons ak ay statues yu fi nekk ñun de bu ñu fale dafay dañ. am nañu suffisamment de référents ak de guides yoo xamee ne que ne ils nous servent d' inspiration ba soxlawuñu ñi ñu doon maltraité ñu di leen jël di leen tuddee ay turu mbedd ki ay affaires yu xaw a mel noonu. diaspora bi war nañ ko jàppale mu nekk si suñu point yi boo xamee ne que ils doivent devenir un des piliers également de l' économie euh, la limite dage pour l' importation des véhicules ñun xamuñu sens boobu ba tey. ku am oto nekk bitim réew nekk immigré di liggéey mën a yónnee sa papa mën a yónnee sa yaay oto ñu waral na jëndal oto bu bees ñun d'accord ñu si loolu pièces détachées yi dañ ko soxla ba heure bi nga xamee ne que marché bi répondre na suffisamment à l'ensemble de ses besoins ñu xoolaat naka lañ koy travailler waatee la sécurité pour tous on en parle la libération des détenus politiques yoon la tey ñu wax ci dinaa si dellu siwaat ñu gën si mën a xóotal euh, réhabilitation du chemin également boo xamee ne que wax nañ ko construire le nous pouvons le faire grâce encore une fois à l'énergie que nous aurons donc loolu yoon la ñu teg ko fi piste de production yi c'est une nécessité abri provisoire yi ci ci ci ci ci àll bi mais c'est c'est c'est honteux ba heure bii ba 2023 ba 2024 ñuy nekk di wax encore ci yooyu la souveraineté maritime oh lu méttee ngi nii contrat yi nga xamee ne que moom la ñu signé naka la ñuy def ba nga xamee ne que buñ ko arrêté wul ñu réviser ko heureusement année prochaine jot na suñu contrat yi ak Union européenne ñu mën ko xoolaat def ko un peu plus des contrats win-win ñu xool ko noo xamee ne que ne dañuy jiital d' abord intérêt Sénégal ndaxte bu fekkee ne dañu bàyyi affaire bi du sotti am na beneen phénomène tamit euh, boo xoolee bateau étranger yi fi ëpp pour ne pas les citer bateau chinois yi. bateau chinois yi dañoo dem sénégaliser wu naturaliser wu ba pare di def des ravages ici au Sénégal ba pare nekk di continuer di def des ravages aussi si yeneen dëkk yi te waruñu bénéficier wu ci loolu. donc loolu war nañ ci poser question naka la ñuy fexee ba nga xamee ne que ne genre xeetu sàcc yooyu xeetu tricher yooyu ñu ànd ci réponse ba nga xamee ne que ne dina mën a tegeeku ñu jàppale bu baax suñu mbokk pêcheurs yi ndaxte sonn nañu sonn nañu boo nee limite maritime bi nga xamee ne que fa la ñu war a nappee bu fekkee ne dañu ne tey jii nii euh, dix kilomètres la ak lu xaw a mel noonu tey boo xoolee à six kilomètres bateau yi dugg nañu ñu ngi fii di napp ñu ngi fii di saccagé tey ji ni géej gi. vidé nañu géej gi. donc euh, monsieur Thiam euh, depuis un moment aussi on parle euh, d'injustice sociale euh, aussi bon, même les politiques aussi parlent d'injustice politique donc entre autres questions donc euh, la tentative euh, de l'État d'éliminer Ousmane Sonko à la présidentielle donc actuellement yow lan nga xalaat ci par rapport ak loolu surtout le cas de Ousmane Sonko. waaw ñu wax nañ ci xanaa ñu waxaat ci rek mm-hmm. suñu jour investiture bañ nañ ko ba wax ci. mais tey mën naa ci dellu si waat nous sommes tey jii nii résolument orientés sur la raison démocratique il faut Sénégal dellu si waat nekk démocratie majeure démocratie boo xamee ne que day na day nangu naka la ñuy peesee ki nga xam ne moo war a jël réew mi ñu ngi koy wax ci plateau yaa ngi dégg on organise des élections mais on n'organise pas une sélection te waruñu prêter le flanc dem foofu tijji nañu dialogue dialogue bi war nañ ko gën a mën a yaatal waruñu d'accord ne que dafa war a arrêter même dialogue bi dafa war a continuer ba heure bii nii. ñu xool naka la ñuy demee vers des élections les plus inclusives les plus transparentes au niveau du Sénégal tey boo xoolee li nga xam ne moo ñu gën a inquiété moo tax ñuy woote pour ñu changer waat la constitution dangay xam ne ni que ni il est inquiétant euh, de voir que on arrive à détourner par exemple une procédure qui a permis de criminaliser un dossier correctionnel. l'usage de qualification abusif day fexe ba dindi lépp loo xam ne sécurité juridique la ci citoyen bu mu mënti doon donc n'importe qui peut être victime de ce genre de pratique te ñun woote wu ñu ci loolu tey dem nañ ba nga xamee ne que ne la raison la loyauté déserté nañu esprit yi parce que mooy li ñu doon wax sànq da ngay fal président ñu foog ne buur la ñu fal lan la ñuy wax ci buur buur aayul sax dàgg yaa gën a aay des fois la ñuy wax ñi ko wër di jaxase di mélanger di andi des chose yoo xam ne que ni noonu la ñuy taalee dëkk pour rien pour des injustices te loolu jaru ko Sénégal tuuti na nous sommes dix-huit millions de Sénégalais nous nous appelons à une concordance nous appelons tey à une cohésion nationale nous appelons à un programme alternatif nous appelons à un programme commun boo xamee ne que ne ñëpp mën nañ gis seen bopp ci biir un dénominateur commun de proposition yoo xamee ne que képp ku falu da ngay ne moi je m'engage à pour le compte du Sénégal donte Sénégal moo ñu intéressé mm-hmm. fekkee ne Sénégal rek moo ñu intéressé war nañu mën a ànd mm-hmm. war nañu mën a fexe ba nga xamee ne que endurcissement des cœurs yi ñu teggi ko division bi nga xamee ne moo am ñu wàññi ko ndaxte dañuy politique te war nañu d' accord sur ce minimum minimum li gën a tuuti mooy ennemi amul on peut être des adversaires politiques, mais on doit se respecter. On doit se respecter. La prison ne peut pas être utilisée comme ça. On ne peut pas continuer sur cette situation parce que ça décrédibilise nos institutions, ça cultive et ça entretient la haine et le ressentiment et ce n'est pas bon pour un pays. Je le dis encore une fois, la prison ne peut pas être utilisée comme une arme politique. Sur loolu rek, elle fausse la démocratie. Te tey il est temps, je le dis, il est temps de nous ressaisir. Je parle à qui de droit Il est temps de nous ressaisir. Parce que cette situation-là, ça peut détruire un peuple et ça ne le vaut pas. Ça ne le vaut pas du tout. Donc, moo tax ñu ne nañu fexe bañ a décrédibiliser suñu institutions yi nañu fexe buñ ko def allons encore une fois te jii nii sur une majorité républicaine ñoo xamee ne que ne l'ensemble de la majorité war nañu mën a toog diisoo bokkandoo xalaat ne ce qui nous divise c'est pas important c'est ce qui nous unit qui est le plus important c'est l'essentiel c'est vers ça où nous devons aller et c'est un programme commun boo xamee ne que ne qu'importe ñi nekk ci kanam ak ñi koy diriger c'est c'est la notion d'équipe c'est l'esprit d'équipage qui devra régner et loolu la ñu war a mën a yóbbu loolu tey jii nii moo ñuy permettre ñu amaat la souveraineté ndaxte toute division rek nous écarte de cette réelle souveraineté te daf ñu yóbbu ci ay parparloo ki ay xuloo ki ay kaale ñu continuer alors que continuer douze ans après ñu fa nekk sax war nañu mën a jox ñeneen ñu ñu jël donc moo terminer ci loolu la détention aujourd'hui de de Ousmane Sonko est perçue et est réellement vécue comme une véritable injustice est vécue comme tey une gangrène qui met tey jii nii à mort l'état de droit qui met à mort l'indépendance de la justice et même qui risque de mettre à mort la démocratie sénégalaise. Il faut y faire gaffe, il faut le libérer. C'est une demande populaire et c'est une exigence de la communauté internationale mhm. euh, parce que le Sénégal a signé un certain nombre de, de, de, de contrats, euh, de pactes euh, avec d'autres pays il y a des choses yoo xam ne que ne mënuñu ko def et j'en profite encore une fois pour dire il faut libérer tous les détenus politiques qu'il y a au Sénégal okay. des innocents aujourd'hui remplissent les prisons pour des raisons politiques nous pouvons nous ressaisir et il est temps d'arriver à nous ressaisir à nouveau. ok donc ñu fàttali tey euh, ñu ngi dalal Alpha Thiam muy secrétaire général du parti Force Nouvelle dimbali sa réew euh, monsieur ñu bàyyi nga tàggatoo ñu ngi si jeexantal émission bi xam naa neexoon na trop gaaw na du ñu yëg temps bi nu mu nu mu gaawee mhm. euh, man c'est un appel que je lance solennellement à l'ensemble des forces vives de la nation à l'opposition à. tous les amoureux de la démocratie, de la belle démocratie sénégalaise. Il est possible de créer une véritable union pour une majorité républicaine suñu tasaaroo bi nii dafa bëri te tasaaroo bi nii na milite que pour li nga xamee ne que moo fi nekkoon ci douze ans yi mën a continuer te dañu bëgg loolu jeex maa ngi woon nit ñu bàyyi xel que Sénégal suñu Sénégal la notre devise le Sénégal au Sénégalais il est temps que ñu réapproprier waat suñu moomeel suñuy ressources suñu or suñu gaz suñu zircon suñu marbre lépp lu ñu yàlla baaxee war nañ ko jël ñu fexe ba nga xamee ne que dañuy tànn ñi ko gën a yelloo ci wàllu profil ci wàllu diplôme ci wàllu njàng ci wàllu xamxam ci wàllu yar ñu mën leen dénk bépp post boo xamee ne que ne c'est en rapport avec le développement du pays maanaam ci pouvoir bi ci entreprise étatique yi ci entreprise parapublique yi the right man at the right place fexe ba nga xamee ne que ne c'est par appel à candidature que la ñuy choisir DG yëpp ñu fexe ba nga xamee ne que ne justice sociale daf fiy dellu si kumba am ndey kumba amul ndey dafay jeex ñu fexe ba nga xamee ne que ne tey jii nii dañuy liggéey pour Sénégal mën a jëm kanam ñun ci loolu tey la ñuy dox ci loolu la ñuy woote dañuy woote à la construction tey d'un Sénégal réconcilié avec lui-même apaisé parce que réew mi dafa cliver dañ ko xaaj ba mu ëpp ni ñu dañu xuloo njaboot yi xuloo nañu ngir politique te lool dafa war a jeex te jàmm war na fi dellu si dañu bëgg Sénégal boo xamee ne dafa war a mën a projeté wu avec ambition et audace dans la réalisation de son destin en cela nag nu tendons la main à tous les Sénégalais à l'ensemble des jeunes pour engager la transformation de notre pays sur la base d'un projet co-construit d'un projet construit par des Sénégalais pour de Sénégalais du pour ñeneen du ñu xaar waa Mars du ñu xaar waa Pluton ni ay extraterrestres pour ñu ñëw développer suñu réew suñu réew ñun ñoo koy développer suñu bopp te xam nañ ne que ne on a un programme intitulé le Sénégal au Sénégalais programme bi mooy défendre le Sénégal parce que Sénégal dañ ko nasaxal Sénégal du tubaab bi rek moo ko sonal tubaab bi dafa am ay préfet ay sous préfet yu mu fi teg yoo xamee ne que ñooñu gën a sonal ko ñoom te jot na tey ji nii ñu impliqué waa diaspora bi impliqué ñu nekk ci village yi impliqué bépp sénégalais fu mu mënti nekk mu def loxoom tey ji nii ci développement wu Sénégal bi nous mettrons ce programme la en œuvre bu yàlla defee tey ñu fal ñu si nous le mettrons en œuvre et on le mettra en œuvre en votre nom ci turu sénégalais bu nekk au nom du peuple pour que vive le Sénégal ñun dañu am euh, l'intime conviction qu'un autre Sénégal que beneen Sénégal mën na nekk am nañ conviction boobu noonu te Sénégal bi ñu bëgg xam nañ ne que mën na nekk su si ñëpp jàppee ci loolu lañ leen di woo ci rëgën jëf. ñu ngi lay jaajëfal monsieur Thiam.